بطي مفتاح العلوم الدينية قلنا بإنسان تيار لجلسيون صلى الله عليه وسلم نيان بكتك كونتانت أندا تجين سندا منية المريد للعلام الأديب سيد أحمد بن بابا العلي السنجدي تنجي ورا أندا جين سندا جروم بنيلو suñ dars bi paase ñu ngi taxawoon ci bayt bi ñu waxee ni zayyana man ansa'ahu wa xalaqa bayna al anaami xalqahu wa xuluqa mu jàngale foofu bindab yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëmm wane ni suñu borom subhanahu dafa taaral ak moom yonent bi sallallahu boo déggee ñuy wax ci yonent yàlla yusufa ne uutiya satral xusni moom lañ jox genn wàll ak taar kon yonent bi sallallahu alayhi moom moo al xusnu bi kaamilihi huwa al xusnu wal ihsaanu minhu loolu la ko Cheikh Ibrahima waxee mooy jëmmi taar lépp lu rafet rek ci yonent kon mooy zayyana man ansaahu wa xalaqa ay zayyana xalqahu man xalaqahu ki ko bind muy suñu boroom wa taala moo taaral ak bindam taaral ak sosom ndax yonent bi wa sallam ak sosom yéen ñëpp xam ngeen ko sosoom ñu ngi tàmbalee ci aalamul arwaax bi nga xam ne suñ boroom subhaanahu wa taala eh, daf ko dafa def mahabbatu bim am ngir jaam yi bëgg ko muy boppam péy bu beru péy boobu la ñuy tuddee alxaqqatul muhammadiya ci la sosee yonent bi sallallahu wa sallam kon xam ngeen ni fam ko sosee sosuwaay bu taaru la waaye tamit bind ba mu ko bindee ba mu ko wàccee ci aalamul asbaax bind bi mu ko bind bind bu taaru la moo tax mu ne baynal anaami ci biir mbindee si xalqahu bindam bi jëmmam bi mooy jëmm gën a taaru ci jëmmi mbindee si yi tamit mooy jikko yi gën a taaru loolu leer na nañu ndax alquran تجينا بنونت صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم يو ياي كي جنة تارو جيكو ياي كي جنة تارو أي جيكو تينك سنو دار سيدي ورا كما سيدي بيتي بي مي وقت كان ينجئ بهاء منظره لحسنه لا نحه عن مخبره عن مخبره لشبهه بسيد العباد أحسن أحسن أحسن كل حاضر وباد وحفظ القرآن في سبع سنين عن شيخه العالم الذي عن شيخه العالم بالدين المتين آه، وبعد ذا اشتغل بالعلوم فجعل الغامد كالمفهوم وحاب في صغره قصب السبق فيها وقطره على ذاك التفرق أفتى ودرس وذلك على صغر سنه أفتى ودرس وذلك على صغر سنه نعم ونزل أم أمثلة ثم ارتقت همته العلية إلى اتباع السادة الصوفية فجال في سلف أهل الله عادة كل عابد أواه وينك وعمره إحدى وعشرين سنة لله در أمه ما أحسن فهو لن يتحوطي في سنو در ابن بابا فكان ينجئ بهاء منظره لحسنه laamihahu huwa an maxbari wax naa la ci ginnaaw ne la suñ boroom mi bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa taaral ab jëmmam taaral ay jikkoom moo tax mu ne fa kaana nekkoon na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yundi udi feeñal bahaa manzarhi taara karkanamam bi li xusnihi ndax ak taaroom taaru goo xam ne laamihahu an maxbari maanaam melkati ak leer gi nga xam ni mooy ballee ci kanamam yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yonantu mënatu koo nëbb waaye googu mooy feeñal taaru yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag taar woowu dafa ànd ak li ñu tuddee xëybatu muy wegeel woo xam ni yonantu kenn du ko def jàkk xool déedéet dellul ci xasaan ibnu saabit radiallahu anhu ba ko waa Makka joxe gëlëm yu bari ne ko demal nga xas yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dem ca jàkka ja mu toog ci yoon wi di ko xaar ba yonantu ne tëll mu xool ko ay bëtam attanut lumière yonantu bi sallallahu alayhi wa ndax dafa ànd moom xusnoom gi dafa ànd ak bahaawu taaram gi dafa ànd ak wegeel goo xam ne day tax kenn mënta jàkkaarlu jëmmam gi ci manam maanaam jàkkaarloog moom di ko direct ken du ko def da ngay sàcc rek diko xol motax hasan tax xasaan dafa ne lamma raaytu anwaruhu sataat wa ta'wada'tu kaffi min khifati ala basari khawfan ala basari min husni suratihi wa lastu anduruhu illa ala qadari ruhun min an-nur fi jismin min al-qamari كحلية نسجت minal anjumi zuhud muy wayu gàtt te làmboo mboolem xaqiqaat yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa ne ba ma ko gisee lamma raaytu anwaaruhu sataat ba ma gisee ba yonentu ne tëll ba leeram gi ba leeram gi fenk wadaatu kassi min xiifati ala basari jël naa samay tenk muuree ko samay bët ndax ragal samay bët faru xawfan ala basari min xusni surati ndax rajal bi nga xam ne samay bët ragal na ko ci taaru xar kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lumière bi mu àndal mu ne falastu anduruhu illa ala qadari doonuma ko xool lu duut maa ngi ko doon xool ci eh, sàcc di ko xool ñu ne tax mu ne yonent bi ruuxu la boo xam ne mi ngi jigee ci leer waaye ruuxu googu wàcc ci jëmm joo xam ne weer la gis mi minal xamari boo ko doon misaal tey mi ngi ni caqab or bu ñu nas ba mu rafet takk ko ci eh, eh, doqab jongoma ju rafet na muy rafete noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci misaal rafete kon te xam nga ni Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moom dafa donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu moo tax su may wax ci Cheikh Tidiane dafay mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ibnu baaba ne zayyana man ansaahu ki ko bind moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu muy boroomam taaral na ko man bind na rafetal na bindam xalqahu wa xuluqahu rafetal jikkoom su ma waxee Cheikh Tidiane wax yonantu dama la bëgg a wax ni rek lil waarisi maalil mawruus ci donnu kam donnu la nekkoon ci moom yëpp ngay royaatal ci moom moo tax boo may déglu dafay mel ni yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam laay wax waaye bàyyi dafa waxoon ni qawl cheikhi ka tarjumaani rasul waxu Cheikh Tidiane yonantu rek lay firi waaye tamit kuy jàngale Cheikh Tidiane yonantu rek ngay jàngale moo tax mu ne fa kaana nekkoon na yum ji uddi feeñal baha amanzarihi lëgeel ak xar eh, eh, kanamam li xusnihi ndax taaram laa ni xaxu woo xam ne dafay jolli al maxbara maanaam ji eh, maxbara maanaam al al maxbaru mooy al xaqiqa al batina batina mooy xaqiqa bi nga xam ne moo nëbbu ci ndi fiɓi ndah ndirogi hakkam min ndirono ko bi sayidil ibadi sifagirdindesi ahsin yemala taar wala bo ahsani ma yideegolu bi sayidil ibadi ci sangar ndindeesi ki nga xam ne ahsani kulli xadirin wa baadi moo gëna saaru képp ku dëkk ci teeru bi ak ku dëkk ci àll bi kon nga mën ci déggee ni yonente bi salallah ai sallam lépp lu nekkoon ci moom ci taa waatal na ci Cheikh Tidiane radiallahu anhu loolu lu lu leer la comme ni ma ko waxee sànq ci waxu baay bi huwa wal ixsaanu minhu ne yonantu mooy taar mooy jëmmi taar te lu rafetati rek ci moom la jóge eh, loolu nag di wa xafida alqur'aana wattuna alqur'aan fi sabci sinin sabci sinin ci juróom ñaareelu atam an seytihi jànge ko ci sëriñam ba nga xam ne alaalimi mooy boroom xam-xam bi zi diini di boroom ak diine almatiin yi nga xam ne diine ju dëgër la kon nga mën see شيخ تجار رضي الله عنه موكلنا القران جروم نياري الاتم رب امي جروم نياري الى تالي القران الكريم لولو ويكتي ويننكو حفظ القران سابع حجة مجيدا مجيدا اي طفل بدا طفلا لي لي وي امسلو وخمنا لفاي منغو بيرك كون دمان تجيني ما شيخ تجار رضي الله عنه سيدو عبيدك تيجي سنجي wax na ci moom ne xafisa fi sabai sinina ma nazal an jaddihi faajab minhu minhu xasar yëpp ay bayt la yoo xam ne dafay wane ni ki nga xam ne mooy Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mi ngi mokkal alquran ci juróom ñaareelu atam boroom xam-xam bu mag bi ñuy wax ci daytisil iraqi yi wax ne ci téeréem bi ñuy tuddee ar risala shafiya ci tariqa tijaniya mu ne kenn ci suñu muqaddam yi ci tudd sayd tayyib sufiyaani radiallahu anhu moo nettali ne baayam ahmad moo ko nettali mu jëlee ci woy juram sayd tayyib borom tahiril ifaada ifaadul ahmadiya ne moolana cheikh tidiane radiallahu anhu ba mu taree alquran ba yegg ci kul wallahu ahad baayam daf ko defal benn xafla maanaam seet boo xam ne daf koy seetu ustaadam bi teew mooy Seyd Mouhammad Hamu At-Tijaani ak ñeneen ci nit ñi ndayam daal di koy toggal ay bernde loolu mu doonoon barke bu saawaan baawaan mu doonoon lu leer nañu luy leeral ni moo na Seyd Tijaan radiyallahu anhu ci juróom ñaareelu atam ci la mokkal Alxuraan mu ne wa baada ba ginnaaw mokkal ak alquraanam nag istaxala yitte woona bil ulumi ci xam-xam yitte woona xam-xam maanaam ulum jamu ilm dañ ci jublu mooy mboolem xeetu fànn xam-xam yi fiqhu luga naxwu mantiq bayaan ak yeneen yépp ci xeetu xam-xam yi xadis balaaga yépp mu ne mu dem fa jaalal gaamida mu dem ba xam-xam yi nëbbu yi yu lënt yi mu peeg leen maîtriser leen kalma fóomi comme xam-xam yi neex a dégg yi ni mu leen maîtriser ginnaaw loolu nag wa aftar wa xaaga mu làq fi sigar yi ci jamonoy ndawam xasaba sabqi la faw jiitu fiiha ci xam-xam wa qutruhu ala dalika tafaq te loolu gox bi mu doon dund ñoom ñëpp nanguloon nañ ko ni moo fa ëpp xam-xam ginnaaw ba mu amee bu bëri woon boobu nag afta ubbee na maanaam ah, doon toog ñu di ko laaj muy tontu afta minal ifta te luñ xam la ci fuqaha yi ñu toog di xamle ay xatte sharia di tontu ay masala ci diine wa darasa jàngale na wa dalika loolu ala sigari sin yi ngi nekk boobu mi ngi nekk xale bu ndaw ci at naam waaw kay mu ne e, maanaam min al munazala hiya nuzulu kulli wahidin min al munazala fi muqabalati e, comme maanaam ci jamonoy xale ci la wattoo lépp nga mën ci borom xam-xam yi dañuy wax ni moo na seet yaa radiyallahu anhu ba mokkale alquran mokkal wu wér ci dënnam ci juróom ñaareelu atam ci la góorgóorlu nag dem seet mboolem xeetu xam-xamu zaahir yi yàlla wërsëgal ko mu am ci ak may ba wattu mboolem xeetu xam-xam yi doon na tari laxdar yi asmaa eh, laxdar yi muxtasarul xat eh, muxtasarul xal yi muqaddimatu ibnu rusd buxaar yi téere na leen an zahril gayb moom Mawlana Cheikh Tidiane comme ku ni ko seex sidi alim xarazim radiallahu anhu nettalee ci jawaabul maani ginnaaw loolu nag su martaqat topp mu yëkkati himmatuhu hippeem ga al aliya bi kawe ila tibaayi saadati topp yoon sang yi suufiya yi nga xam ne ñooy ko def suufiya moolaana seex sidi radiallahu anhu borom himma la woon bu kawe yitte bu kawe marta dogu ci mbir lu duur ni dina ko def mooy al azmul qawi loolu mooy al al al al al himmatul aaliya loolu boo ko déggee mooy benn quwa la benn kattan boo xam ne quwal baatina la kattan bu nekk ci biiram la boo xam ne moo koy xam ngir muy xee yitteem jug di dox li nga xam ne dafay kawe ci ay yitteem jëm ci borom bi subhaanahu wa kon gis nga loolu la Mawlana Cheikh radiallahu anhu nekkee woon yëkkatiku ci ay jitte jëm fan jëm ci yoonu sàng yi nga xam ne ay suufiyanke lañ te suufiyanke yi nag mën nga leen tënk ne mooy ñi nga xam ne dañoo xamoon seen borom doon ko jaamu ba pare tëddu àdduna ñoom ñooy suufiyanke yi euh, tur boobu nag nga xam ne mooy tur ak borom xam-xam yi wax nañ ci bari li gën la lëng ci li ñu d'accord mooy ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi du tur woowu feeñ waaye nag am na ci ay xibaar yu wane ni lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tur boobu nekkoon na fi ndax boo demee ci axbaaru makka euh, ñu ngi nettali dafa amoon na jamono joo xam ne kaaba gi dafa wéetoon ak ay nit kenn doonu fa dem di fa jaamu yàlla lu dul ni benn waaye bu ñu boo xam ne suuf yaa ngi la woon moo doon ñëw wër kaaba bi ba pare dem kon baat bi nekkoon na fa te kooku ko xam mandarga biñ ko loon rek mooy jaamukatu yàlla kon suufiyanke yi duuñ kenn ku duwut jaamu yàlla bu dul loolu wax nañ ci ay wax yii ne ci jamono taabi na ne yi la xew ndax qissa bi ñuy nettal ci alxasanul basri radiallahu anhu ba muy wax ni ba ma demee ci tawaaf bi daje naa fa ak benn suufiyanke ma yoroon ñeenti dawaaniq bëgg ko jox mu ne ma li ma yor doy na ma kon foofu tamit melow yi ñu ciy jàngee ci melow suufiyanke mooy doylu niki noonu sufiyaanu sawri nettali na moom itamit taabi'i la mu ne lawla abu hisham suufi ma araftu daqiqa riya su doonu toon abu hisham suufi su ma xam sew sewu ngistal kon gis nga sufiyanke yi yàggoon nañ leen xam donte que tur yi euh, euh, siiwutoon ci jamono yonente sallallahu alayhi wasallam loolu nag li ko waral mooy baatu saxaaba moo gën a foor baatu sufiyanke ndax maqaam ak soxbatu duñ ko dendaleg maqaam ak tasawuf euh, kon gis nga bokk na ci tamit ci wax bi nga xam ne wax nañ ni ci taabiyi taabiyi na yi ci tur woowu feen muy tur wi nga xam ne mooy tur ak suufiyanke yooyu yëpp jotoon nañ ko leeral ci suñu yenn dars yiñ doon def ci wàllu tasawuf ci yaataloon ci lool lool lool kon gis nga fa jaala mu daal di wër fi talabi ahlillahi ci sàkku nit yàlla yi aadata kulli aabidin awaahi loolu nag aada yi bépp jaamukatu yàlla boo xam ne dafa nam mu dellu ci boromam la lépp bépp jaamukatu yàlla boo gis mu nam ma dellu ci boromam rek fu mu fu ba jeexal tere xam-xam rek dafay dellu ci waat ci dem wëri nit ñu baax yi ngir dëkk ñoom kon gis nga nit ñu baax ñooñu nag mooy nitu tasawuf yi tasawuf nag comme ni ngeen ko xamee duwut sol ay yëre yu xotteeku wala ñuy waay ngay jooya ca tëbaka dal du loolu lan la بل التصوف أن تصفو بلا كبر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا مؤيد إذا تخبر سلال سبكا تنبولا مجاك جاتي طب يالا طب القرآن طب سدينه sun la fekk nañ la gis ak xusu ngay do soroxul borom bi subhanahu wa ta'ala te saa yoo defee bakkar nga dellu ci ginnaaw ànd ànd ak njaaxare ñii ñooy sufiyanke yi ñu duwul ñoom duñ moom moo tax ku bëgg a yegg ci ñoom faaw nga def lii mooy yëkkati sa yitte jëm ci yàlla te boo jëmee ci yàlla mooy ci dem ba yegg ci yàlla mooy ki nga xam ne dafay xam màggaayu groupe betu yàlla ji xam ni ñu taxawee ci xàppu borom bi subhanahu wa taala teggi lottu ak tayal ak noppaloog yooyu ci dundam دگمل برام دی سبحانه وتعالى تعالی فست یعنی خوز کی شیم با گیر دندو دندو دینا خرم موی دندو گوری اللہی موتاف مونے لولو موی آدائی گوری اللہی و عمرو بمی دف لول نج ای اتم می تول کی احدا و سنة نافو کی دن لله در امیه ما احسنه منام دفعی یم ki nga xam ne mooy nday ak Seex Tijaan radiallahu anhu mi nga xam ne moo indi jëmm ju kawe nga xam ne taaru na ci jëmm taaru na ci jikko taaru na ci xam-xam taaru na ci lépp kenn mësta jur ni ku mel ni moom te kenn dootu jur ku mel ni moom kon mbokk yi lii mooy suñu dars allahuma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq